denceen ak Mamadou Mouhamed Ndiaye. jërë ngeen jëf benn fankat l'observateur nee nañu moo dese waa Benno Bokk Yaakaar ngir ñu xam ban candidat la leen Macky di tànnal suba ci ngoon bu 4 heures jotee ci la président Macky Sall convoqué conférence des leaders bu Benno Bokk Yaakaar ngir wax leen candidat bi mu leen tànnal nañu ko def joo gis nañu ko wax a koy jiitu yéenekaay bi nañu moo waral ndaje mi responsable yu APR yi amaloon démb ci njiital yaakaar ñoom la président Macky Sall bëgg njëkk a xamal kan lay tànnane candidat woolu na leen suba ca palais ba bu 4 heures ci ngoon jotee ñi nga xam ne nee nañu bëgg nañoo doon candidat ci biir Benno Bokk Yaakaar journal bi nee nañu mën na am ñu woolu leen ci réunion ba leneen lu ñu journalisé ko xamal ci mbir mi moo di képp ku ñu tànnul nga mer ba wane ko bu dee da nga amee poste ci réew mi dañu koy nangu bu nuppi dàq la tribune ne masees na leen a joxar bi baaramu tuuma ci leen ñuy rébélé wu ak di fippu li ñuy xaar ci ñoom mooy lu Macky ko ànd ca kon day góob di gar nar naa bare ndax ni ñu gisee yëf yi ak rébellion di fippu mi ngi xeeñ ki fippuwul xët-xëtiwul génnee na mu duggee woon di Youssou Ndour borom fekkee ma ci boole l'observateur xëy na di ñu xibaar ci xëtamu njëkk ne ginnaaw bi mu dellawee président Macky Sall ci njekk poste ministre conseil bi mu ko joxoon ci gouvernement bu Sénégal bu nuppi nag fa bu moom ak i ñoñam di waa fekkee ma ci boole génn ci coalition Benno Bokk Yaakaar conseil exécutif ñu tënkee ca ndajama l'observateur xëy nañu ci jukkil ñett benn moo di féddale seenu njàppale mu di soutien jëme ci Youssou démissionné ci gouvernement bi ak ci gouvernement bi ak ci benn bokk yaakaar ñaareel ba di rafetlu ngor ak gore gi nga xam ne moom la Youssou Ndour ak mouvement bi di fekkee ma ci boole ànd ak Macky Sall ci diiru fukkeet ak benn ñetteel ba di encouragé Youssou Ndour ngir mu gën a yokki jéegoom ci li mu dëkkee mu di lu saxal jàmm ci réew mi lu boole xol yi ak lu yokku réew mi réew mi njiitam di Macky njiital port autonome de Dakar di Mountaga Sy xëy na di jàngat ci direct news bilan ci fukkeet ak ñaar yi mu def ci bopp réewum Sénégal ci juróom benn ponk yéenekaay bi nee nañu ci la Mountaga tënk bilan bu président Macky Sall ci at yi mu yor réew mi mi nee na Macky Sall ci crédit personnel am ak ci rigueuram ci la sukkandiku ba tabax Sénégal gu mucc ayib Sénégal des résultats fexe na ba suñum réew di Sénégal doon ci wàllu bonne gouvernance ci diiru fukki at ak ñaar mu ne ci diggante 2014 ak 2021 président Macky Sall fexe na ba Doing Business boole suñum réew di Sénégal ci fukki réformateur yi gën ci àdduna bi journal L'As xëy di ñu xamal ci xëtamu njëkk ne mission bi fi waa FMI di Fonds monétaire international yebaloon ci réew mi ginnaaw bi ñu xoolee gëstu càmbar biir ak biti li ñu gis moo di suñum réew di Sénégal def na ay jéego yu mag réew mi Quotidien ko waaye terewul tension politique yi ñu dund ci réew mi ci weer yee ñu génn affecté nañu bu baax baax koom-koomu réew mi Le Témoin nañu xañ nañu benn poñ ci wàllu croissance économique Le Quotidien di ko dëggal ci xëtamu njëkk ba bind ne manifestation yi ñu dund ci réew mi ci weeru juin gi weesu tax na taux de croissance économique bu 5 pour cent gi waa Sénégal dafa wàññeeku léegi 3 gis bu baree ba bare 4,1 pour cent ko waaye terewul ci taux de croissance économique bu Sénégal ndax nee nañu li ñu gis bu dakul 2024 mën nañoo yegg ba ci taux de Ahad Mbacké Gaynde Fatma xëy na sëkk waxtaan wu yaatu ak waa l'Observateur moo jiite commission bi ñu dénk communication bu màggalug Tuubaa gi ginnaaw màggalug Tuubaa gi ñoo ngi dëtmal beneenub xew-xew diine ci réew mi mu di gàmmu gi lii quotidien nañu moom it ci jamonoy nawet ca lay am waaye kilifa yu ONAS di office national assainissement ñoo ngi dalal xelu kilifa yi ca Tiwaawoon ci ne danañu def seen kemtalay kàttan ba inondation démb Mamadou Mamour Diallo mi jiite ONAS ngir ñu waxtaan ci wàllu assainissement bi fa ñu xamee matuwaay yi ñu jël ngir gàmmu gi bokk na ci lu mat juróom fukki camion vidange yu ñuy mobiliser ci dëkk ba bokk na ci juróom-ñett fukki toilettes yu ñu war a installé ci dëkk ba bokk na it ci système de pompage bu bassin bu PAM gi ñu renforcé gise bi ñu gis démb ci diggante ministre de la justice Ismaïla Madior Fall ak ay rappeurs yu mag yu nekk ci réew mi journal Source